ci ni nga xamante ni noonu lañu ñu gàttandoo bi ñu tàllalee sunuy loxo ngir feeñaloon sunu yéene ngir teewal leen fële nga xamante ni moom mooy pencu ndaw réew mi muy assemblée nationale ñu waroon ko jaare ci benn mbir moo xamante ni mbir mu doy la woon mbir mu jafe la naqaree lijjanti waaye xamuñu ci kaw suuf soxla boo xamante ni itte doomu aadama xaj na ci kawam bu dee pas-pas ba sell na itte ji rëy lu ñu song daan ko moom mooy parrainage loolu nag bi ñu toogee woon fii ñu toog tey yëkkati sunu kàddu ba Sénégal yëpp dégg ko ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ci barab yu fasantikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew yàlla sunu borom defal ñu tawféex ba sénégalais yi daal di ñuy gàttandu gàttandu boo xamante ni kawe na sunu njot dinañ si dellu si waat loolu moo tax la ñu bëggoon muy parrainage bi ñu jàll ko ba tey ñoo ngi ci yoonu validation waaye poñ bu njëkk bi moo doon nga jàll d'abord parrainage bi li njëkk mooy parrainage bi nga jàll ko njukkal googu nag dañ koy jox sénégalais ak sénégalaise bu nekk fu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñun bi ñu yëkkatee suñu kàddu ba sénégalais yi am ñoo xamante ni wuyu nañ ñu dafa am na kilifa yu ñu àndal yoo xamante ni kenn kut ci nekk ci ñoom daanaka fagg woon na loolu ñu tudd caution ba noppi dajale woon na it parrainage yoo xamante ni. daanaka bu bu suivre bu continuer woon liggéeyam ba mu jeex daanaka war naa mën a demal boppam waaye li ñu gëm xalaat ko te ñun loolu lañu gëm ndax keroog bi ñu toogee fii dañu tàllaloon suñu loxo képp koo xamante ni ñun ak yow ñoo bokk gis-gis ci senegal képp koo xamante ni ñun ak yow ñoo bokk mbébét ci senegal nga ñëw ñu ànd liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def ay jëmm daal di bàyyi la ñu daal xam ne kenn ku ci nekk mën naa demal sa bopp waaye bu ñu àndee moom mooy gën a baax mooy gën a woom mooy gën a mucc ayib ñooñu daal di ñëw boole seen xel yu rafet yooyu boole seen xalaat yu rafet yooyu boole seen doole yooyu daldi ne mbir mi kenn ku ci nekk toog ci ruqam di ko lijjanti mën naa ne waaye li gën mooy ñu xool nu ñuy ànd ca saasa ñu am solo daal di jóg ak ni nga xamante ni noonu lañ ko salfaañee ci biir Sénégal ak ni leen ñàkkee jox seen gëdd ñuy bàyyi xel doomu Sénégal yooyu yëpp yi nga xamante ni dañuy yëngu ci loolu mu nekk lu am solo keroog bi ñu ciy waxtaan man ak moom dama ne ko waaw ñun nan la ñu mën a def ba am benn Marrakech ci biir Sénégal te lu mën a nekk la Marrakech boo fa demee di nga doxa dox ba sonn doo dajeeg malayka doo dajeeg jinne ay nit rek a fa ne liggéey nañ ko ba mucc ayib waaw ñun lu ñu ko teree def te am nañ lépp te mënuñu ko def dox boo fa demee da ngay dox ba sonn doo dajeeg malaaka doo dajeeg jinne benn extraterrestre gisuma ko fa ay nit rek nga fay gis comme ñun te mënuñoo fexe ba ba def li nga xamante ni moom mooy li nga li ñu war ba réew mi suqaliku loolu tamit nekk loo xamante ni yéem nañu lool mbokk yi loolu mooy kuréel yi nga xamante ni ànd nañ ci ak ñoom beneen kuréel boo xamante ni tamit Jurbel la nekk ñu waxtaan ak ñoom di xool nu ñuy def ba ànd ci liggéey bii nga xamante ni moom la ñuy def mooy tam nekk ca Jurbel tudd Irsad ki nga xamante ni di Fallou Mbay moom it nekk ca bopp ba ñu nekk di waxtaan di xool nan la ñuy def ba ànd liggéey bi nga xamante ni moom lañu ñu bëgg a def ngir senegal jëmm yi nag lu doy waar dal lu lu lu xaw a raar ci jamono ji dañuy wax ne tabe ci tabe ci alal yomb na waaye tabe ci daraja moo gën a jafe liggéey bi kat ñoom dañ ñu jiital ñu ànd ko waaye ñoo ci ñoo ñu ciy njëkk xëy ñoo ñu ciy mujjee wàcc nekk ay jàmbaru fakk tëdd yu am solo ànd ak ñun liggéey bi waaye li ci gën a am solo mooy valeurs yi nga xamante ni moom lañu ñu moom la ñu partagé muy yar muy teggin muy worma waaye surtout muy bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi mooy wërsëg bi ñu sunu borom defal wërsëg bu mu ñu mën di defal bii daf ñoo neex lool ñu ko ci sant mooy yàlla moo ñu wërsëgal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi bokk ak ñoom seeni coono ak seeni naqar seen coono yii nag ñu ne dinañ leen ko dinañ leen ko jàmbatal fële nga xamante ni moom mooy assemblée nationale. assemblée nationale wax naa ko léegi soloom foo ko takk weesu na ko bu njëkk mooy contrôle de l' de l' exécutif maanaam lañ leen di lañuy jox nguur gi ci alal dafa am foo xamante ni foofu lañ ko war a saytoo lu ko jiitu ak fa lañ ko war a saytoowaat bu ñu ko doxalee ba noppi lépp lu ñuy jox nguur ci xaalis ngir mu war a agsi ci li tax daawul agsi ci yéen ni ngeen ko bëggee mooy kuréel googu dafa defut liggéey bi mu war a def loolu nag lañu ne dafay jeex tàkk dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi ak kilifa yi ne leen tool bi du booy loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo ñu yëkkati loolu nag bokk na ci li tax mënatuñu toog moo tax ñu leen di wéy di leen tàllalaat suñu loxo ngir ngeen ñaanal ñu ñu matal liggéey boobu mu nekk liggéey bu am solo